asalaamaaleykum cër ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel di ñu suivre ci wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu di leen ziar cant ngërëm ñeel na leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ni ñu koy faral di defee nag saa su soxla teewee wala mbir xew ci làmb te ñu bëgg cee waxtaan ak yéen dañuy daal di ñëw fas yéene waxtaan ak yéen fas yéene dëgtal leen lenn loo xam ne nii dina leen permettre wala mu permettre ñu ñu xam moomee. naka la demee ak lan moo ci xew mbokk yi fan yi ñu génn làmb am na beneen tournure beneen tournure bi mooy lan mooy kuréel gi nga xam ne moom la ñuy dippee CNG di comité nationale de gestion de la lutte ñu tabb tabboon ko diiru at yu bare bare bare bari ki nekkoon ci bopp ba nekkoon docteur Alioune Sarr nekkoon président ba def fi ñaar fukki at ak juróom-benn yoo xam ne mooy doxal bi les moo nekk ca bopp ba ànd ci ak équipe bam ca war a ànd. moom moomee nag semaine bi ñu génn gis nañ ne changement am na ci boppub CNG bi waaye changement am na aussi ci membres yi nga xam ne nii ñoom ñoo ko doon jàppale ci liggéey bi doonte ñëpp demuñu mu nekk xew-xew boo xam ne nii bariwut lu ko ay nit di fekkee ci làmb ndax ñaar fukki at juróom benn lu ne xëj na fi lu ne xew na fi aussi gone màgg na fi ba nekk fi muskàllaf mbër juddu na fi ba nekk fi champion donc yu bari xew na ci diggante bi am na ñu bari ñoo xamante ni changement ci CNG ñu ngi ko doog a fekk moo waral nag ñuy xalaat ndax dana am changement ci côté làmb ji ci boppam mu bañ a nekk changement ay nit changement ay tur changement ay poste mais est-ce que dana am njeexital ci làmb ji loolu mbokk yi mooy question bi nga xam ne moom la ñëpp di posé ñu rafetlu nag geste bi nga xam ne le ministre Matar Ba def na ko ndax yàgg na ko def dafa ñëw répété waat ko parce que bu ñu juumut am nay jamono ñuy wax comité élargie ñu élargir ko yokkaat comité de gestion bi dugalaat yi ñeneen ñoo xamante ni jàpp nañ ne war nañoo mën a jariñ làmb comité élargi boobu bu ñu xoolaatee ci changement CNG bi mel noonu moo am ndax le ministre Matar Ba tey kuréel gu bees gi bureau bu bees bi nga xam ne nii moom mooy CNG bu bees bi gis nañ ci ay changement ci fànn bu ne. gis nañ ci aussi mbooleem kuréel yi nekk ci làmb am ñu leen représenté ci boobu CNG mu nekk nag lu rafet waaye rek ñuy prêter attention parce que am na ay erreurs yoo xamante ne nii. mu ngi ci biir te sàkk sàkkuwuñu ko ci ndax tey euh, rafetal weesu wut képp kuy gravité autour de la lutte nga dugal ko ci kuréel gi d'accord mais nag ñu def ko ci anam boo xamante ne nii texte yi nga xam ne CNG moom moo ko bind muy réglement ñu ne làmb ji nii lay doxee ñu respecté texte yooyu mais tey bu ñu xoolee ci doxalin bi xool ci liggéey bi xool ci ni ñu tëggee bureau bi danañ ci gis ay njuumte yoo xamante ne nii sàkkuwuñu ko woon ci le ministre Matar Ba sàkk sàkkuwuñu ko woon aussi ci ñi nga xam ne nii ñoo ko doon xelal ngir ñu tëgg bi le bureau CNG ndax nag réglement bi nga xam ne ñun ñëpp ci lañuy sukkandiku réglement bi lu leer la wax réglement bi làmb ñoo ko bind teg ko fi donc lu leer la wax te li nga xam ne moom la ñu tënk ci réglement bi ci loolu lañu war di sukkandiku di ci sukkandiku ba keroog. ñuy jël réglement bi ne lii réglement bu bu bu bu màgget la jël ko tege ne la indi beneen réglement ñuy soog a bàyyi règlement boobu mais tey ci ni ñu tëggee bureau bi gis nañ fi ñu indi manager yi repré ñu am ab représentant ci biir CNG bi gis nañ promoteurs yi gis nañ aussi euh, amateuru làmb yi gis nañ mën naa ne. du ma ne journaliste sax mais ay reporteru làmb si biir maanaam corps bu ne rek ci làmb tey gis nañ leen ci CNG bi nga xamante ne nii kuréel gu ci nekk am nga ci représentant mais ci biir loolu am na nuñ ko defee noo xamante ne nii bokkul ak li règlement bi tënk ndax tey euh, Basirou baabu bi nga xam ne moom mooy le président des managers gis nañu ko ñu copte ko boole ko ci personne ressource yi donc bu ñu waxee copte nañu ko rek c'est parce que boole nañ ko seen biir bu ñu ko fa boolee rek membre CRG la CNG la te bu nekkee membre CNG mooy moom mu ngi seen biir te pourtant réglement bi waxut loolu ndax leer na nañ tey bu ñu xoolee ci réglement bi nga xamante ne nii CNG moo ko tëgg statut du manager parce que Basirou Baab ku ko wax wax président des managers donc manager la manager la mu ngi yor ay mbër. manager la mu ngi jiite ay manager tey bu ñu demee ci statut manager boobu ci article douze article dafa wax ne la qualité d'un manager ne pas compatible à celle def deux points ñu ne ñan la compatible mu ne un membre di CNG limaat ne un juge wala arbitre en activité wala lutteur en activité loolu li muy tekki mooy. qualité manager boo nekkee manager yoon mayetu la ci làmb nga nekk membre CNG yoon mayetu la nga nekk ab juge kuy àtte ci làmb wala nga nekk arbitre en activité boo xam ne ni yaa ngi arbitre di sex sifflet ba léegi wala nga nekk mbër moo xamante ni tekkee goo sa ngemb yaa ngi bëre ba léegi loolu la article 12 bi wax te article 12 boobu bu ñu ko sukkandikoo bu ñu ci sukkandikoo dañuy gis ne njuumte am na ci CNG bi ndax Basirou baabu sunu papa la président des managers la manager la en activité ba léegi nii te alors que moom membre CNG la parce que copte nañ ko certes dinañ ne ci personne ressource yi la bokk mais personne resource boobu noonu dañ koy considérer comme membre CNG parce que ci la bokk nomination yi dégg nañ ci turam ñu nommé ko ne diw Basirou Babou euh, en tant que manager moom membre CNG la parce que personne ressource la donc am na ñu bari ñoo xam ne dinañ xaw a jaaxle tuuti ci personne ressource bi est-ce que dina am impact direct ci CNG bi walla déet mais foofu nañu bàyyi xel ne tànn la te dañu teg kuréel ñu ne kuréel gii dañuy tànn ñu ci bokk ñi ci bokk nag bu ñu tànnee ay nit ak fu ñu la mën di féetale rek yaa nga ci kuréel ga ak fépp fu ñu ko mën di féetale mu ngi ca kuréel ga parce que mu ngi CNG du ñàkk muy dem ay réunion même bu dee chaque trois mois lay doon bu dee leneen ak leneen lay doon mais du ñàkk muy tase ak ñoom ay réunion te dañ koy considérer comme membre CNG parce que foofee noonu même bu nekkee conseiller wala nga nekk personne ressource wala lu mu ci mën di nekk boo fa toogee nag fay toogee comme qualité personne ressource su CNG bi donc membre CNG bi nga foofu mu nekk njuumte loo xamante ni xëy na bàyyi nañ ci xel xëy na bàyyiwuñ ci xel mais lu ñu bëggoon a leeral la pour ñoo xam ne ni ñu ko commencé nii am na ay rëq rëkk yoo xam ne nii mu ngi ci commencé am mais am na beneen boo xamante ne nii dañu ko doon sàkku di ko xaar bëggoon koo gis ndax bi ñu ne dañuy soppi CNG bi fi nekk nit ñi xalaatoon ne président Alioune Sarr dina fi jóge nit ñi xalaatoon ne yeneen post yi danañ ko changé waat am na ñoo xamante nii ñu ngi leen doon séentu ca biir moo waral euh, durant période bi ñuy wax naan diw a fiy nekk ak diw moo fiy nekk defuñu benn émission pour wax ni diw moom lañ ko gën a fooge wala diw lañ gën a am ci moom yaakaar wala ci diw lañ gën a miser parce que li ñu doon bañ mooy mu niru par parloo ndax képp koo tudd malgré compétence ya nekk ca moom day mel ni propagande wala mel ni day da nga koy campagnal wala ñi xaw a gàtt xel tuuti jàpp ne am na as as tuut sooy am ci moom lu waral nga toog ci écran yi di ko tudd loolu moo waraloon ñu ne nañ bàyyi ba mbir mi jeex ñu gëstu ci waxtaan ci xool li nga xamante ni lu baax la ñu wax ko xool li nga xam ne ay gàllankoor la e, ñu wax ko mais tey dañoo ne CNG bi feeg deux ans dañuy dem ci fédération ñu ne ministre bi day jël ay nit dënk leen CNG boobu durant deux ans balaa ñoo dem ci fédération ba waral tey Bira Sène nekk le président tey euh, Maysa Ndiaye nekk le premier vice-président chargé de la lutte avec frappe tey suñu papa Manga 2 nekk le deuxième vice-président chargé de la lutte sans frappe tey ñu gis aussi jigéen joo xamante ni intégré nañ ko ci ñu koy rafet lu baax muy Isabelle Samb bu nekk troisième vice-président chargé de la lutte olympique donc mu nekk ay mbir yoo xamante ni lu am solo la waaye dafa am lu ci manqué tey bu ñu limee bureau bi ba mu jeex fédération la ñu jëm donc il faut ñu am projet boo xamante ni dès à présent danañ ko mettre en œuvre di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey ba fii ak deux ans projet boobu mën a àgg à terme ñu jàll fédération mais tey ak nii ñu coptee nii bu doon waxuñu ne dañuy dem fédération sax amul problème ñii ñu copte war nañoo mën a yor làmb ji war nañ ko mën a doxal mais tey fédération la ñu jëm. am na déjà benn genre fédération boo xamante ni mu ngi fi ba nit ñi peut-être ñu ñenn xam nañ ko ñenn ñi xamuñu ko mais am na déjà benn fédération de lutte boo xamante ni mu ngi fi fédération lay xaw a nirool te buñ demoon bay def fédération aussi noonee la ñu koy defee muy benn association boo xam ne ñu ngi koy wax association des responsables des écoles et écuries de lutte di Sénégal muy ARELS tey ARELS bu ngeen ko xoolee. mboolem kuy responsable ci écurie wala école de lutte rek am nga fa représentant ñoo ñooñu représentant école ak écurie de lutte yooyu yëpp ñoo booloo def seen benn association donc foofu biir nañu ne duñ fa kaas lu dul luy doxal écurie yi kanam duñu fa waxtaane lu dul luy jëmale école de lutte yi kanam duñu fa wax lu dul luy jëmale mbër kanam duñ fa wax lu dul luy jëmale làmb kanam donc fédération aussi noonu la parce que délégation la te fee yi ak école de lutte ñoom ñoo délégué seeni membre ñi délégué seeni président ñi délégué seeni i secretaire général ñi délégué seeni seeni seen i yeneen membre ñu ñëw euh, intégré ci bile association donc bu ñuy dem fédération aussi noonu lay demee parce que écurie bu ne danga am délégué délégué boobu noonu soit ak répartition nañ koy defee ci local baak département baak région baak ba ba ñuy àgg au niveau national noonu lay nekk rek par délégation lay nekk donc forme bii nga xam ne moom la arrêté jël même forme moom la fédération nar a jël te fédération lañ jëm te am nañ arrêté bu nekk sur place ba pare donc j'aurais aimé tey ñu jël arrêté boobu intégré ci ay membres ci bureau CNG bi doole leen parce que déjà ñoom am nañ avance ci projet boobu ndax yàgg nañoo booloo doon benn di liggéey ci loolu donc am nañ avance ci projet boobu ñu boole leen ci bureau CNG bi ñu àndandoog CNG bi ñu liggéey pendant deux ans. buñ ci àggee dinañ taxawal benn fédération boo xam ne làmb dina ci gis boppam du am coow du am ngawti ngawti du am dara parce que nag fédération lañ jëm mais doole bi écurie yi la ay école de lutte bu ñu àggee fédération ak forme bi ñu koy defee bu dee ni fédération di doxee lañ koy tëggee donc ministre bi dootul amati mais mise ci euh, fédération ba parce que par élection lay doon par vote lay doon bu boobaa démocratie moo fay dox majorité bi moom mooy définir ki nga xam ne ni moom mooy nekk président fédération boobu ak membres yi nga xam ne ni ñoom ñoo cay bokk donc bu boobaa école de lutte yi ak écurie yi ñoom ñoo ciy am doole école de lutte ak écurie yi ñoom ñooy représenter seen bopp te ñoom ñooy téyal seen bopp làmb ji donc am nañ kuréel goo xam ne déjà mu ngi sur place li ñu bëggoon wala li waroon nekk mooy ñu jël ci kuréel googu boole leen ci seen CNG bi ñu liggéey ci fédération ba réeroo bañ a am euh, xiiroo ak ŋaayoo bañ am. mais nag comme nii la demee nañu seetaan équipe bu bees bi nga xam ne ñoom lañ fi teg ñu gën a liggéey ndax ku leen xam ci làmb nga leen xamee suñu papa Bira Sène ku ko xam ci làmb nga ko xamee nekk président CRG bu Kaolack liggéey fa liggéey bu mucc ayib parce que boo defoon micro trottoir ca Kaolack aussi euh, même boo amul cent pour cent aussi danga am majorité boo xamante ni dañ naan la làmb ji ci kaw la liggéey yor na ko yor bu rafet may sa Ndiaye aussi cees gis nañ drapeau chef de l'état ba ci mbuur ni waa mbuur àndee ak waa cees yépp delloo ko njukkal loolu day wane ne mu ngi fay liggéey liggéey bu am solo suñ papa Manga aussi ancien gloire la liggéey na fi bu ama am solo donc tekki ngembam teewut muy kon ni di jàppale làmb di tëgg ay gala di jàppale mbër yi Euh, kooku aussi bu ñu ko joxee lit sans frappe mën nañ ne dañu dellu ba ca ndaala gis nañ fi aussi Isabelle Samb nga xam ne médaille bu ne indi na ko senegal ci lutte olympique ñu delloowaat ko cëram loolu aussi lu rafet la donc nañu leen gunge pousse leen à ce que ñu liggéey mais nag ñaari njumte yooyu la ñu waxoon ne faaw ñu waxtaan ci ak yéen bu nekkul njumte ñu xam ne ñun ñoo juum parce que xel matul te dañuy def ay jàngat rek xalaat jàpp ne affaire bi kat nii la waroon mën a demee wala lii la ñu jàpp ne moom moo ciy njuumte bu njuumte amul rek jàpp leen ne ñun ñoo juum parce que làmb ji ñun ñoo ko bokk te dañoo bëgg à chaque fois ñu koy defar ngir mu jëm ca kanam mbokk yi lii moo nekkoon li nga xam ne nii waxoon nañ ne danañ leen ko indil donte nemmeeku nañ ci yeneen nag yeneen yoo xamante nii danañ toogaat benn par benn di leen ko listeel ji ci waxtaan benn par benn ba mu mat sëkk mais ñaar yooyu la ñu ne woon il fale que ñu waxtaan si ak yéen il fallait que tey ñu bàyyiwaat ci suñu xel parce que ñu ngi dem fédération te liggéey bu bu mucc ayib liggéey bu yéeme liggéey bu méttee métti moom mooy xaar président écurie yi ak membre écurie yi ngir ñu organiser wu ba bu ñu demee fédération boobaa liggéey bi day yomb du am benn at boo xam ne danañ ko toog di stand by nekk ci ay liggéey di defar ay affaire ak di dem ay élection genre yooyu dañuy ñëw rek mu nekk continuité loolu moom moo taxoon ñu doon sàkku tey teewaayu AREELS ci bile bureau CNG bu bees mais aussi yenn yi nga xamante ni réglement bi euh, da ko prévoir woon dañu gis ne euh, def nan ko sans autant que ñu basé wu ci règlement bi moo waraloon ñu ne aussi il faut ñu souligner loolu ba nit ñi xam ko jër ngeen jëf mbokk yi cant ngërëm ñel na leen ñu leen di jox di daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jër ngeen jëf.